ay série d'agression yoo xamante ni jamono jii lee nemmeeku nañ ko ci diwaanu Kafountine tax na nag ba jamono jii ay soxna yu bari ñàkk seen bakkan ci yile agression lim toll ci fukki soxna ak ñett yoo xamante ni ah, fekk nañ leen ñuy nelaw ñu daal di leen a faat ci seeni néeg mu nekk ay xibaar yoo xamante ne ah, Sud Quotidien moo ko xamle nee na jamono jii lee plateforme des femmes pour la Casamance ay soxna ñoo ko taxawal ngir jàmm daal di am ci seenum nekkin ah, jamono jii lee plateforme boobee jug nañ taxaw temb loo ak ay organisation féminine yoo xamante ne dañuy xeex àq ak yelleefu soxna yi ngir nag série d'agression yi am ca diwaanu Kafountine yoon def liggéeyam ca mbir ma ñi nga xamante ne ñoo amal bi la fu ñu daal di leen a traduire en justice maanaam nag ñu janoog yoon ñu àtte leen teg ay daan yu saf ci seen kaw jamono jile sax ab marche lañu jàpp boo xamante ne nee nañu le 13 juillet bi ñu nekk la ñu ko fas yéene amal fukki fan ak ñett ci weeru juillet la ñu quotidien moo ko biiral ci bësu atey bi leneen loo xamante ne fës na loolu ci actualité yu bësu atey bi day audit yoo xamante ne tàmbali woon nañ ko fii ci diwaanu Sénégal ab interview la ki nga xamante ne moom mooy Mansour Faye nekk maire bu Saint-Louis nokkeenu itam ministre bi nga xamante ne mooy yor wàllub hydraulique ak assainissement fii ci diwaanu Sénégal def ca suñu nattaango yu l'observateur yooyu dellu soir na nag ci li nga xamante ne dafay situation fii ci réew mi mu ne nak coowal audit boobee Mansour Faye nee na nag amul lenn loo xamante ne daf koy tiit di ko ragal ci audit bi nga xamante ne njiitu réew bu Sénégal di président Diomaye Faye moo ci lëkkaloo ak Ousmane Sonko boo ko amal ci yenn béréb yu bëri fii ci Sénégal ci doxalinu nag régime bu fi nekkoon ndaxte nag jàpp na ne mu président Macky Sall bii le ay lubal yu takku la ñu ca demmeeku ba tax na sax jamono jii dañuy sàkku ñu daal di fay amal ay audit nee na nag li nga xamante ne moom mooy ay enquête yu ñu ko jagleel jamono jii le pare na ndaxte nag amul lenn lu muy nëbbu wala sax lu muy ragal li nga xamante ne moom mooy programme jagleel les programme boobee nag ñu financé woon ko ci lu toll ci 60 milliards maanaam rek juróom benn fukki milliards la Sénégal génnoon nag teg ko ci taabal gi nguur gi amaloon ko ñu mën a financer bi les projets Mansour Faye nee na nag loolee lépp jàpp na ca war nañ ko ciy def ba tax na sax jamono jilee jàpp na ne li nga xamante ne moom mooy nguur gu yees gi ak seeni démarche rek nañu taxawalee lépp mbirum enfantillage la jàpp na ne dañu xamul fi ñuy taxawee moo tax nag ñuy laal fii di laal fee te nee nag loolee jamono jilee tiit na lool ndaxte nag danger la pour Sénégal danger la pour askan bi nga xamante ne ñoom ñooy yeewu fii ci diwaanu Sénégal maire bu Saint-Louis yemu ca critiqué na ñi nga xamante ne dañuy suñu autorité yu yees nee na nag wàllum tentative de dénigrement la ñu nemmeeku ci li nga xamante ne moom mooy wàllum administration fii ci diwaanu Sénégal te nag lépp loo xamante ne jotoon nañ ko ko dénk yor na ko ci confiance ak transparence amul lenn lu muy daw ci li nga xamante ne noonu la yore woon li nga ko jotoon a dénk ci nguurug président Macky Sall état du Sénégal gannaaw rek peine nag nag dafa am ay luubal yu ñu defoon ci nguurug président Macky Sall lu ci mel ni nag xeex bi ñu tegoon ci wàllum érosion côtière ak li nga xamante ne moom mooy littoral bu Saint-Louis ak li nga xamante ne moom mooy coowal érosion côtière fa nga xamante ne moom mooy ca plage bu Gendax géej gi tàmbali nag di ko jël at yu ñu mujj yëpp loolee lépp koppar yu ci génnoon jàpp nañ ne nag dafa am ay luubal lépp dafa war a leer te nag autorité yu yees yi loolee la ñuy sàkku Mansour Faye ci ay kàddoom nee taxaw na temb ngir nag ñu daal di def ay lanket ndaxte nag amul lu muy nëbb amul lu muy tiit amul lu muy daw na mu yore woon nag kër yi ñu ko jotoon a dénk xelam dal na ci ba tax na sax jamono jilee mu nga toog di leen xaar mu nekk nag ay kàddu yoo xamante ne ni ki démb la ko yëkkati ci ab interview boo ne mu ko doon accordé suñu nattango yu fare ci l'observateur ne moom mooy Rewmi TV loolee moo fi yesandi woon tey xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax woy leen di abonné ci seen chaîne bi nga xamante ne moom mooy Rewmi TV ngeen bés lii di cloche de notification bi bu boobaa nag daa ngeen jot bépp vidéo boo xamante ne Rewmi TV daal na koy dugal ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen jaa ngeen